mu am capacité d'accueil bu toll ci daanaka ñaar fukk ak juróom-benn junniy place chantier tabaxum sanctuaire marial bu Popenguine teg na ay jéego yu mag. premier ministre Amadou Ba daal na fa dem ci ngoonuk alxames jile ngir saytu naka la liggéey ba demee. muy nag liggéey bu rafet léegi mu pare ndax finition yi rek moo ci des nee nañu fi ak weer ba ñaari weer xëy na. dina mën a pare comme ça ñu jébbal ko euh, ñi ko moom ñu ñëw fii di jaamu yàlla di ñaan pour réew mi di ñaanal seen bopp di ñaanal askan wi yëpp di ñaanal adduna bi yëpp parce que fii euh, dëkkuwaay la boo xam dafa barkeel moo tax ñu def ko fii defee ko ci aussi ci anam bu gën a rafet. mu di visite boo xam ni archidiocèse bu Ndakaaru daal na ca kontaan loolu di ci jaajëfal gouvernement bu Sénégal. Je salue donc l'ouverture maa ngi sant bu baax bureau architecture bu ndakaaru ak njiitu réew mi nga xam ni nangu nañ projet bu baax waaye itam entreprise yi nekk fii ci Sénégal yoo xam ni dugal nañ ci seen yoxo muy chrétien wala jullit. on a donc le sérieux et l'amour du travail. bërëbu jaamukaay yàlla bile dinañ ko jébal ña ko moom juróom-ñeenti fenn ci weeru décembre bi ñu maa la bu ñu sukkandikoo ci bureau d' architecture bu palais de la république.